donc mën naa dafa daw te te mënul ñëw. non mais su fekkante ni est-ce que euh, euh, maanaam euh, information bi dañu ko joxee c'est-à-dire ni nga xamante noonu la ñu communiquer. Mhm. su fekkante ni communication bi leeral noonu est-ce que li xew Ziguinchor démb dina fa xew parce que nit ñi li ñuy defoon seen bopp mooy que ni Ousmane Sonko dañ koy jël si dañ ko fekk këram. jël ko ba xale yi ñu ngi doon veillé këram. sax non xale yi veillé ci këram ci airement ñoom xamuñ sax nekk na fa dem ñu nekkul këram c'est des actes prémédités tu sais seen superficie def ils sont capables de tout et puis c'est la région sud quoi il a la capacité peut-être de sortir d'aller quelque part et puis sans sans être connu sans être vu quoi mm-hmm. ñu parce que la preuve en est s'il était dans une résistance mm-hmm. qu'il veut légitimer démb day nekk ci biir këram dama refuser ñëw même bu amee boucle day toog et que ñoom ay dem boo jóg ñëpp ñu recevoir c'est ça la vraie résistance mm-hmm. c'est ça parce que quand tu fais mais donc maintenant il est en acte de, de fuite. C'est comme un fugitif qui, est, qui, a pris la fuite qu'il faut rechercher et arrêter. C'est pour cela la contumace là, s'il ne revient plus et que les gens n'ont pas la capacité de dire quoi, mhm. situation bi wala appliquer la contrainte par corps mais après dañ koy juger par contumace et délivrer un mandat d'arrêt mhm. au terme de l'article yaa koy yaa koy wax léegi nga ne suñ ko bëggoon a jël même da ngeen dañ police wala gendarmerie day jële ay euh, ay seen ay kër armée non bien sûr dañ koy jël démb mais population bi ni mu taxawee démb non du ci dara ak li nga am na ay ay ah. de refoulement y a des au maintien de pour les éclater c'est rien du tout démb est-ce que est-ce que mënoon na nekk. ñuy non mën na nekk ak ni ni ñuy gars yi. non naka naka lañ koy naka lañ ko mën a. non il faut il faut y a des formations EMO ki ki ki yoo xam ne loolu la ñuy def désencombrement la ak siège et investigation d'une maison la kooku dañ ko jàng. ñoom mën nañ ko il faut faire des failles et tenir les gens à l'échec boo xam ne kenn du mën a ti jege et puis y a des y a des moyens. yaa y a des moyens homologués qu'il mhm. utiliser il y a des il y a des il y a, il y a les lacrymogènes qu'on peut mais lacrymogènes yi neexutal kenn ah. Mhm. fu mu dem ñaari ñett mais xale yi léegi tàmmu dara bu leen jàppee juróomi lacrymogène boo ko sànnee kenn du fa mën a taxaw di lijjanti leneen. Mhm. waaw xale yi nag ñoom euh, gendarmerie police da leen di protéger parce que on n'a jamais vu des mineurs dans le monde qui participent à des à des à des à des rébellions à des révoltes. même Nations am na waroon nañu am droit ci nii ñuy wooyee xale yi. même les droits humains parce que c'est des l'abus de faiblesse de mineur c'est presque criminel nonobstant ñoom affaire émo bi ak affaire politique bi ñuy wax mm-hmm. la manière dont il appelle les jeunes mineurs là à manifester à s'exposer à les autoriser ñu leen di rey leen kii ñoom war nañ leen ci enquête jàppale. naka la ñuy egsee fii naka la ñuy def ba impliqué ci xale yi nga xamante ni. waaw xam ne da xam ne mënul. non xale yi dañ leen di jël amul jàpp non non il abuse de mineurs. c'est un léegi les mineurs ont été ont été comment l'appelle-t-on dañ leen a courtiser quoi c'est-à-dire dañ leen a corrompre mm-hmm. parce que leur cognitif n'est pas assez développé pour qu'il y ait la capacité de discernement moo tax c'est des mineurs le responsable pénal est mitigé mm-hmm. et y a des civilement responsables à leur à, leur place c'est-à-dire ñoom dañoo def faute le fait d'accepter et de d'intégrer et d'utiliser les mineurs à ce qu'il s'oppose aux forces de sécurité et à l'exécution des lois en s'exposant létalement. xam ne mën nañ ci dee mën nañ ci gaañu. donc ñoom fi ne fa bi ñuy def ñoom ñoo ko wax en public wax ko ci télé wax ko ci rajo yi na xale yi génn na xale yi opposé wu na xale yi nangam donc tous ceux qui le disent on doit les ficher en attendant pour que ëllëg bu ñu demee ba enquête jot dañ leen war a jàpp. parce que woo xale waaw ñii woo xale yëpp dañuy war a. enquête ñii jàpp nañu bari def waaw tant pis bu yeboo ñu mat

bi ku ci génn da ngaa tëdd normal génn c'est-à-dire il faut mettre le prix pour remettre l'ordre ñi ils ont après des mineurs à à à se suicider. Mm-hmm. c'est comme un secte. Et on doit les poursuivre pour ça parce que c'est suivi d'effet. Mm-hmm. Le gos qui a est mort à à Bignona c'est un mineur. Les la, la les toutes les personnes qui sont décédées là-dessus presque en grosse partie c'est des mineurs. Il peut pas organiser des événements et des manifestations dans lesquels à l'occasion desquels ils ont appelé des mineurs waxuñu mineurs yu ñëw ñu ne ñun waxuñu ko indiwuñu leen. Mhm. mais ils ont appelé les mineurs à participer à ces manifestations qui mettent en cause leur vie et leur intégrité corporelle et avec appel suivi d'effet ils doivent être tous poursuivis pour ça. d'accord bu ñu ñëwaatee ci li xewoon démb Ousmane Sonko pour yow lu tax mu euh, euh, adopté attitude bi nga xamante ni euh, amee na ko démb daw. la xaw nga ma lan laa gis. waaw il a peur du procès. ah que bu doo tëb ñu ne la xat gi damm na nga dem ci kër guddi vingt une heure nangam ñëw ñu ne ndaw si nangam nga naan dew moo fa pa dem naa fa damay faju damay nangam da ngay ñëw taxaw mu taxaw nga ne ko man wax ma li ma a def ndaw si wax li nga ko def nga weddi li nga weddi mais ne complot complot mënu fa am parce que moom teebo yi nga xam ne doon lay capitaine Touré yooyu wut moom ñi ñëw ci affaire bi. mais ñoom nee nañ xamuñu ko capitaine Touré nee na xamul Sonko. non xamu ko mais na ñëw wax li mu def. mu comparé ko ak PV bi ñu yóbbul euh, tribunal capitaine Touré li muy expliqué moom boo amee lu muy disculpé waaj bu boobaa dana ko man mais moom fi ne benn témoin du ko défendre parce que euh, euh, si le l'accusé ne se présente pas aucun témoin parce que le témoignage pour éclaircir le juge sur la contradiction de la demanderesse et de la défenderesse la partie demanderesse et la partie défenderesse léegi ci la ci la ci la témoin di dugg ci diggante boobu pour élucider mm-hmm. les deux versions et que le juge puisse en tirer ban moo ciy dëgg léegi dans le cas où il ne vient pas ah moom euh, témoin amu fa leneen amu fa donc tout ce qui est présenté comme accusation par euh, par l'AFI sera tenu comme comme comme comme qui de droit mmh. argument de droit et en conséquence le juge peut entrer en condamnation pour contumace et puis euh, le, euh, lui donner la peine maximale et que dans le cas d'espèce il ne pourra plus comparaître librement parce qu'il sera recherché et arrêté pour extrait de jugement en tout lieu, en toutes circonstances. Mm -hmm. Et puis là-bas, s'il arrive, il va faire la contumace et le juge va se juger et dina xool l'opportunité de le laisser partir ou pas et je ne pense pas qu'il le laissera sortir. Mm, loolu après dañ ci ñëw loolu ci après suñ ko jugé ba pare par contumace li nga xam si ni daf koy risqué mais ci ci ci li ngay wax ne euh, Ousmane Sonko dafa amul c'est-à-dire ñemewul euh, comparaître euh, ñemu ñemewul procès bi mais am na lu bëri li fi xew ci diggante bi ah yenn révélation yi gars yi def yenn vidéo wala yenn audio yi nga xam si ngeen ba askan bi dans sa majorité ñu bëri jàpp nañ ni yëf yi ay caaxaan. non loolu jeu bu ñu joué la et c' très dangereux pour lui. comment. parce que lu tax c' est très dangereux pour lui. Mhm. parce que jusqu'à présent euh, la FIRA nee na ko nee ko li nga ma def fi ñu dugg ak fi génne moom laa lay faral y a une relation de cause à effet. Mhm. yow munoo nekk ak jigéen ci néeg mu jiñ la viol te du ngeen taxaw yéen ñaar ñu atte leen. à dire son problème est sa faute. la faute qu'il a commise da koy topp ba ba mu faatu du ci génn mooy le fait d'aller la bas à vingt et de rester avec une fii boo xam ne amul benn argument professionnel boo xam ne mën na laa faj donc moom son problème qui se pose tubaab nee na euh, olof daay def ne ku ñu ku ñu jë jiñ dëmb ngay seen yooyu yeelu liir mm-hmm. c'est la même chose pour son cas dafa am loo xam ne moom moom moom même bu doon nekk président maréchal de France da koy topp du ci génn cette fille-là moom il faut mu am mu am euh, délicatesse am humilité ak courage taxaw layoo ak moom moom nee na am na ñu koy defendre mm-hmm. am na ñu ko wane ne du dëgg.

peut-être am na occasion boo xam ne buy dem dana am ñu mën a woo ñu génn mais gis nañ lépp léegi xam nañ lépp xam nañ li tax mu demee nii munoo yow fu ñu ko convoqué nga ne dangay ngay ñoom taxonomie bi ñu utiliser li tubaab di wax manière bi ñuy defee politique par les attaques acerbes injures menaces ils s'en sortiront jamais et ça va les rattraper loolu mooy seen problème boo ne xat gi dama na ñu woote leen génn France sax la ñuy nekk di woote nit ñuy génn fii sax dañu ñàkk fayda ñàkk kilifa ñàkk ñàkk fu ñu jëm parce que une jeunesse aussi bu dee gëmoo sa bopp doo jàng. Mhm. jàngoo alxuraan jàngoo métier jàngoo liggéey jàngoo dara ñu ne la xaaral ñëw ñu sàcc ñu sàcc jox la nga jël alal ñu liggéeyoon wala demal ci Auchan yi mais ñooñu xale dañ lay topp. parce que xale boo xam ne bu bu chaque jour nga créer ko occasion mu dem Auchan toj ko. Mhm. sàcc chaque jour nga créer ko occasion mu dem ci kuy jaay portable daal le quartier repérer ko dem jël ay portable am chaque jour. Euh, l'enfant qui est jaloux wala un gars qui a chômé qui est allé à l'université il a échoué nga nga gëmloo ko ne ko am nga occasion pour yàqal sa morom yi nga xam ne dañoo rëccoon dem liggéey nekk ay ay kilifa wala am dara tekki dara moo tax looy gis da ngay gis ko ñu lakk otoom sax doo xam ki ko lakk en tout cas lakk ko. Mm-hmm. parce que il est jaloux tout simplement c'est son professionnel ñoo jàngandoo ci koñ bi. da ngay dem ba ci koñ bi sax loolu problème la ñu am. mais est-ce que du seen seen seen euh,